caravane bi. waaw. foo demoon yow dañ la fi bàyyi de. tànk ji fii du palaasa. nee naa la mbëkk de dana mos a tànk ji du palaasa. yéex naa wóoroo sax. waaye lancé go affaire egg nañ kay waaw waaw mais bi woon démb ah numéro exposition bi ma la joxoon waaw su numéro boobu noonu bës bës bës bul tëj bës bul tëj am dugalal ma li foofu SMS boo mu dugalee sama ordinateur moo si nekk jàmm si rek. ngoone waaw dafa naan waaw foofu waaw c'est pas une raison pour ngay ngay forcer bunt bi di ma gaañ nii yow tamit. ngoone ngoone boo ma tegal sama saaf sa kanam noonu. Karavan bangi we ya gen beden apexi jama tuan pel cross ma tuan pel gisiana ah, nyingi we ah, gisiana ya na termina bro dero ma apa seen dañuy xaarandi camion leader yi romb camion leader yi dañuy xaar mu romb ñun presque ñu placé waa côté parce que euh, leader yi sori nañ ñu seen oto bi sori nañ ñu seen combat mu ngeen di seen noonu depuis station bi noonu ba ci euh, point bi noonu gis ngeen seen karawaan baa ngi noonu donc euh, gis na wala baa ngi nii xool euh, sëñ bi yéen fi ngeen jógee. waaw ñu ñoo jógee commune Tivaouane Peulh. Tivaouane Peulh ngeen jógee. waaw commune Tivaouane Peulh lañ jógee. tur gaal sant bi. Pascal Philippe Correa. waaw nekkal fi maire El Hadj Cissé monsieur le maire El Hadj Cissé fi nekkal Diomaye président maa ngi ko ci dëgg moo fi nekk. waaw di topp waaw di topp Diomaye Diomaye Diomaye Diomaye président ànd ak moom Sénégal ñu gars yi ñu ne fal benn président am ñaari président mooy promotion bees bi. Sénégal am ndam. jërëjëf donc euh, gis na presse baa ngi noonu taxaw di xaar camion leader yi ñëw gis ngeen camion baa ngi noonu camion leader yi camion leader yi mi ngi noonu camion leader yi la ñuy xalal camion bi la xalal noonu camion leader yi pour presse bi mën am leen à côté gis na ah dañuy yéegaat suñu oto rek. voilà moom camion leader yi lañ doon xaral camion yi lañ doon xalal leader yi camion baa ngi noonu yéen a ngi seen leader yi ñoo nekk si ñaari camion yi ñoom Guy Marius Sagna ñoom Soda Mariam Ndiaye ñoom Kiwin Louise ñoom euh, Cheikh Tidiane Dieye ñoom Aïda Mbodj seen ñun ñooy nekk seen camion yaa ngi noonu mbooloo baa ngi noonu di daw jàkkat yi seen gaa ngi noonu di daw seen

Forcel Forcel dugg képp ko yow noo ngi dañ nekk di régler presse dugg ci diggante camion yi waaye ah, ñàkk déggoo tuuti ca waa si oto bi mi ngi avancé war a dugg ci diggante camion autorité yi ndax la mi ngi nii def ngeen euh, camion compliqué. gis bu ñu dem eh, bu bu waaye grand yow defal ndànk rek. Eh, donc dañuy wéy dem ci kanam presse kanam la war a nekk ngir gis leader yi ñi am ah, pour la couverture bu ñu féetee ci ginnaaw rek du baax daanaka gis ngeen leader yaa noonu. Gaya ngi daw kisen bola bi non di daw. Kisen gaya ngi non di daw. Kisen karawan bi se reparti. Atuan pel